مفاتح البسر والأمن والجنة للصلاة وتسليم على مقيم سنة مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتضرعين في التوسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد وآله وصحبه ذوي نوال الوالي maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu suñu borom di wax bismillahi rahmaani rahim di sant yàlla di julli di salmaal ci ab yonentam sunu sang Muhammad ak ñu ñam ak i saabaam ñi nga xamee ne borom ay xéewal lañ yu jógee ci sunu borom may aji méngoo ji ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu waa daara ji yëpp nuyu islaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu am mbégte di siwaat ak yéen ci sunu fukkeelu jotaay ak juróom-benn. ci tuxfatul mutadarriina fi tawassuli bi asmail mufaddalin xasiid ak sëriñ tubaa googu nga xam ne ci bax rajas la ko sëñ way euh, te ko ca tubaa gu njëkk ga muy xasiida bu gaaw ci euh, nangu ñaan ndax sëñ bi neen wahab liman bihi yunaaji maa yurum yàlla kuy diyaaleeg yow ci xasiida gi nang ko may la muy sàkku muy xasiida goo xam ne nii bu yéeme la Euh, juróom fukki bayit la ak juróom-ñett mhm. juróom fukki bayit la ak juróom-ñett li mu ay baatam dem na ci quatre cent quatre vingt boo ci boolee li mu xaraf yi mhm. li mu ay xarafam mm, boo ci dem na ci deux mille deux cent quatre mhm. mm, di xasiida gu yéeme xasiida gu neex lool. xasiida koo xam ne day defar sax wali wu yàqu naa defar nit ba yóbbu ko ci mu bokk ci borom wilaay yi tey nag ñi ngi ci wa bi saidin wa bni awfin najjini min kulli ma min fitani xam nga sëñ bi day def tawassul ci ngir xasiida gi ñam njëkkee mooy ulul azmi te mooy juróom yi nga xam ne ñoo gën ci yorante yi mm-hmm. nuuhin ibrahima muusa isa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu defee tawasul ci ñi gën ci juróom ñi te mooy ulul azmi ba noppi mu jël nag ñi nga xamee ne ñooy euh, fukk yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen bégale woon ajjana mu njëkkee ci alxulafaul arbaa aboubacar omar osman aliyu ñu ngi eh, yemoon ci talxata ak zubayr ak saad sa saad lañ mujj jël kon nag tey ñu ñëw ci bi saidin sëriñ bi mi ngi tawasul di ñaan ci barkeb said said ba moom mooy said ibnu sayd ibnu omar ibnu nawfal di kenn ci ñi nga xam ne yonent bi da ko da leen a béggalee muy saxaaba bu màgg nga ne mi ngi gane àddina lu njëkk ñuy yónni yonent bi sallallahu alayhi ci ay at hmm, ay at xëy na dinañ ci ñëw ci Makka la gane àddina baayam nag mooy Zayd ibnu Omar ibnu Nawfil baayam moom mii di xanifan la ci diine Ibrahima alayhi salaam la euh, nekkoon. Hmm, hmm. moom Zayd ibn Umar mi di bàyyi euh, Saïd bàyyam ko jàmbaar la woon yonent neen sax bu yomal xeyaam moom dañ koy euh, day dekki doon aw xeet moom dong moog Waraxas ibnu Nawfal bokkoon nañ ci ña nekkoon Màkka wala ña génnoon doon sàkku diine bañ àgg saam hmm. euh, bu dee Zayd moom ba mu génnee dem saam dañ ko wax ne ko li ngay sàkku mi ngi sa kanam ba àgg ci benn raahib mhm. kon kooku moo ne ko li ngay sàkku sa kanam lay feeñ sa suuf lay feeñee mhm. saxit mi nag kon Zayd ibnu Omar moomu mooy baayam waaye saxit mi bokk na ci ñi njëkk a dugg ci lislaam saxiid mi bi daan wabi saxiid ni def tawasul ci moom di ñaan ci moom bokk na ci mina saabixiina lil islaam hmm, ku teel dugg ci lislaam la moom ak soxnaam fatimatu bintul xataab di sëru omar ibnu xataab radiyallahu anhuma sax ñoo njëkk dugg ci lislaam omar ibnu jëkkëram ji Saïd sax ak Fatima mi euh, bokkoon na ci sababu zahir sababu zahir bi tax Umar ibn Xataab dugg ci diine sababu baatin ba nag moom yonent bi moo ne allahuma ainsil islam bi ahadil xumarayni yàlla na nga terale na nga dëgërale islam ci kenn ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo ñaanoon ne allahuma ainsil islam bi ahadil xumarayni yàlla na nga dëgëralee na nga euh, kattanal kenn ci ñaari omar yi ci lislaam muy omar ibnu xataab ak omar ibnu hicham di aboo jahlin ñaan nga dem ci omar ibnu xataab waaye nag ci saaxir nag ma nga jaaree ci euh, saïd mi ak soxnaam fatima saïd mi sëñ bi def tawasul ci moom euh, fekkee ne xar yëpp ba mu des xare badar xare badar moom la fekkewutoon ndax yonent bi da ko yónni woon euh, mu am lu mu doon xool mhm. bi mu delsee la fekk xeex ba jeex loolu euh, metti ko lool mhm. waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teyal na xolam ñu jox ko euh, ab cër ca mànga yi doon séddale séddaloo ci xale badar Mm-hmm. yonent saxiit laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yoolam nag mu ne waajal ko moom itam da am yoolam bu uh, xare ba moo tax moom saxiit mi dañ koy limaale ci ña fekk wan Badar donte fekkutoon physiquement uh, xare ba waaye nag ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama la nekkoon moom ak Ousmane kenn fekk wu ca physiquement xare Badar te bu ñuy lim xare Badar dañ leen di limaale. mboolem xare yi des yëpp nag Saïd mii sëñ bi def tawasul ci moom naan wa bi Saïdin dafa taqoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jële nañ ci Saïd ibnu Jubayr radiyallahu anhu mu ne Aboubacar Omar Ousmane Aliyu euh, Talata Zubayru Saad Abdurahman ibnu Awfin Saïd saydin ñii daal bu xare masaan am ci kanamu yont bi lañ daan nekk bu xare amee rek fa yont bi xoolee kanamam gis leen waaye waxtu julli juróom bu yont bi sëlmay rek gis leen allahu akbar bokkoon na ci saxaaba yi nga xam ne demoon nañ ci bilaadu saam bokk ca xare ya nekkutoon nag moom lañ noon mu nekk euh, ka jiite arme ba waaye ca euh, ca soldaar ya la bokkoon fekk na maxrakatul Yarmouk mhm. moom Saïd mi di Saïd ibnu Saïd mi sëñ bi di def tawasul ci moom ca tuxfatul mutadarin naan abi Saïdin wa ibni awfin najjini min kulli ma axaafuhu min fitani kon kooku mooy Saïd ibnu Saïd ibnu Omar ibnu Nawfil moom doomu uh, bàyyi taxu Umar ibn Xataab la tayit jigéenu Umar ibn Xataab di Fatima mooy borom këram moom ak soxnaam teel ñoo dugg ci uh, lislaam bokkoon na ci saxaaba yi gënoon a tedd bokkoon na ci saxaaba yi njëkk gàddaay bokk ci fukk yi nga xam ne dañ leen a bigalee ajjana mhm. kon kooku mooy saïd mi sëñ bi di def tawasul ci moom naan wa bi saïdin wax naa ko sànq Saïd euh, fekk na xare yëpp ba mu def xare Badar ndax yonent bi da ko yónni woon moom ak Talxata ñuy def tajasus yeddu yeddu wala agent secret wu Xuraysin ak indi ay seeni xibaar xam nga loolu ci guerre la bokk loolu guerre ku la ëpp information. Euh, mën na laa moo lay gën a jekku geer bi yont bi loolu la xamoon moo tax muy doon Saïd mi ak Talha ngir ñu def tajasus ci Quraysin mën a am seeni xibaar waaye bañ delsee lañ fekk ne xare ba jeex na waaye ñoom ñaar ñëpp yonent bi da leen a hmm, ba noppi ñu am yoolu ko fekk xare ba dar fekk na moom Saïd yar mokk ginnaaw yonent bi la fekk na ba ubbi Dimask moom la Abu Hubayra euh, tànnoon mu nekk waalin alayha Saïd mii nag ku amoon ñaan gu nangu la borom ñaan gu nangaloon ku amoon ijaaba la mustajaabu daawa la nekkoon yàlla ñu ko yàlla defal am na ñooñu lu ñuy ñaan rek suñu borom def ko ci saasa Saïd mii ci ñooñu la bokkoon muy Saïd ibnu Saydin mi señ bi def tawasul ci moom di ñaan ci moom ci Tuhfatul Mutadarihin am na jigéen ju ko mos a ku ñuy wax Arwa bintu Uwais tooñ ko ko ci Marwan ibnu Hakam boobu moo Madina waaye fañ mujjee ñaan nga ko saxit ñaan ñaanoon daroon na ci kawam saxit tuuma jooju ko ndaw sa arbaabu mu defoon da koo waaye mu bëgg yàlla setal feeñal ak setam ci jëf jooju ndaw sa tuumaal ko ci kanamu jul ñëpp Zeydu daal koy ñaan ne allahuma in kaanat kaasibatan fa ammi basaraha waqtulha fi ardiha yàlla ndaw si li muy wax daal bu fekkee ne du dëgg na gumba te na dee ci soosu nga xam euh, ci la may tumaale nii moo tax ndaw sa daa mujj gumba tool boobu mu ci la faatoo ndax daa dox daa dox ba tàbbi ci euh, genn kàmm boo xam ni foofa la nekkoon ci tool boobu kon gis nga Saïd mi mustajaabu daala daawa la woon kon Saïd mi ibnu Saydin mi ngi noonu la ci fukk yi yonent bi bégalee ajjana mhm. ñu njëkk a dugg ci lislaam la ñu gënoon tar la ñuy défendre yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lu njëkk yonent bi dugg daaru ar xam la tuuboon jébbalu jàmbaar la woon jàmbaar la woon lool mhm. kooku mooy Saïd bi tax sim naan woo bi Saïdin di def tawasul Euh, ca moom mm-hmm. moo denc moo doon denc Fatima bintul Xataab bi nga xam ne moo euh, Omar mooy mooy jigéenu Omar moo ko Omar ñoo bokk lépp sax ñoo bokk ndey ak baay waaye teewul Omar tamit denc na ku ñu wax Aatika xaaga mi moom itam sëru Saïd la Saïd yaayam mooy Fatima bintu Baxja yaayam it bokkoon na ci ñi teel a dugg ci euh, lislaam kooku mooy Saïd ibnu Saydin bi sami naan obi Saïdin di ñaan ci barkeb Saïd ak ci ibnu Awfun yàlla musul ko ci mboolem fitna yëpp danañ ci ñëw. kon kooku mooy saxiid moom waxoon naa ko sànq borom ñaan gu nangu la woon yàlla ñu ko yàlla defal digg mag Arwa bintu Uways euh, feeñ ci ak ñaan gam ko ñaanoon mu gumba te faatoo ci teel toolam boobu daa mujj gumba daa ci biir foofu ba ci biir teen boobu fa la mu nekk bàmmeelam na ko sa Saïd ñaane woon Saïd wax naa ko sànq jàmbaari fakk tëdd la woon mi ngi atum juróom fukk ak benn ci gàddaay bi amoon na lu ëpp juróom ñaar fukki at jëm kaw madina lañ ko rob saadu ibnu waxaas moo ko sang moo ko sang saïd ibnu saydin mii nag bokk na ci jëm yi ñu màggal ci ahlu sunna wal jamaa ndax bokk gi bokk ci njëkk a dugg ci lislaam bokk gi bokk ci fukk yi yonent bi bëggalee àjjana bokk ci ñi njëkk gàddaay Euh, badar fekku ko waaye teel nañ ko am yoolu ko fekk badar ginnaaw loolu xar yëpp fekk na ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom ñaan gu nangu la am na tawfeex baa baayam di Sayd ibnu Umar mustajaamu euh, xërëm nekkoon ci diine yonent yàlla Ibrahima ba yonent bi wax na ne baayam boobu bu dekk umma lay doon am na ay ahadis ay asaar yu limu yu ñëw di wane ngëneelu Sayd mii ak wàccuwaayam bokk na ci loolu na Buxaari yu nettali mm, yóbbu sanat ba ci xays ibnu abi xaasim mu ne dégg naa saxiid ibnu sayd di wax naan ci di wax nit ñi ci benn jàkka ju nekk koofa ba loola àgg nga xam ne bokk na ci ay manaaxibam yonent bi seeral na ko ne moom àjjana la jëm ak mbooloom ci saxaaba yi ak mbooloo ci saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama seeral na ko ne àjjana la jëm bokk na ci ay manaaxibam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama seeral bi annahu min suhadaa yonent bi seeral ko loolu na ko shahid la donte dafa faatu ci kaw lalam donte dafa faatu ci kaw lalam shahid la moo tax shahid la ngir loolu yonent bi waxoon ci moom kon kooku mooy Saïd ibnu Saydin bi sëñ bi naan wa bi Saïdin di def tawasul ci moom di def tawasul ci ibnu xawfin te loolu moom danañ ci ñëw ci jataay bii di ñëw kon ci xilaaf ak Muawiya la wàcce liggéey ci atum juróom fukkeel ba ak benn ci gàddaay ba ñu denc ko madinatul munawara ab na ñoo xam ne Saad ibnu Waqaas moo ko sàng moo ko sàng moom ak Abdullahi ibnu Omar radiyallahu anhuma kon wa bi Saïdin sëñ baa ngi def tawasul ci Saïd moomu kon kooku mooy Saïd mi sëñ bi def tawasul ci moom bu subaa nag ñu ñëw wabni awfin beneen jataay ñëw ci wabni awfin najjini min kulli ma axaaf min fitani kon sëñ bi mi ngi ñaan ci Saïd suñ borom musal ko ci lépp lu mu ragal. ci fitna kon lii mooy sunu bindum tey ci xasiida gu neex gu tedd gu barkel gii di tuxfatul mutadarriina xasiida gu ak a gaaw aka a gaaw ci ku bëgg soxna boo ko jàngee juróom-ñaari rek léegi sunu borom may na ko ak ku bëgg euh, borom kër xasiida goo xam ne caabi passe-partout la lépp lépp lu mën a doon rek xasiida gi mën na ci dara bi iznillahi kon nañu yem fi ba jotaay bi di ñëw